double nationalité bu kookee nag di Karim wadd moom sax nag bokk ci candidat déclaré yi nga xam ne war nañ bokk ci élection présidentielle yi 2024 conseil constitutionnel du Sénégal nag daal di publier ci lu yàggul dara liste candidat yooyu ñu daal cee gis rek turu ka nga xam ne moo di Karim Wade ba tax sax loolee nag daal di jox ab

ka nga xamante ne si nag moo di Karim Wade ñu daal ko cay inscrire loolee nag tax xel tey ndax nag ci atum 2019 ba nga xamante ne si moom Karim Wade waxoon na rek daal na woon entamé rek li nga xamante ne si ay procédure ngir rek daal di renoncer ci nationalité française am ngir mën a bokk rek ci élection présidentielle yu 2019 wante mu mel ni sax nag ci élection présidentielle yu 2019 yooyu sax nag mujj ca bokk ngir rek jafe-jafe yi nga xam ne daan na ko woon am ak justice bu Sénégal niki rek ci atum 2024 bi conseil constitutionnel daal di valider candidature bu Karim Wade provisoirement ba tax sax nag ca liste ba nga xam ne daal na koy daal di publier ñu daal cee gis turu ka nga xam ne nag moo di Karim Wade wante liste officielle yu candidat yi sax loolu ñu war ko daal di publier niki rek le 20 janvier kookee nag di Thierno Alassane Sall nekk leader de la République des valeurs moom nag daan nay addu ci mbiru double national personnalité bu Karim Wade ba tax sax moom Thierno Alassane Sall xamle rek ne du bàyyi rek boobu les violations nag muy euh, daal di jàll. ndax na ki nga xamante ne si moo di Karim Wade dafa daal di yor double nationalité ndax nag dafa yor nationalité sénégalaise ak française te loolee sax na nag méngoowul ak li nga xamante si nag moo di la constitution de notre pays ba tax sax nekk notre loi fondamentale dispose que tout candidat à la magistrature suprême doit exclusivement être de nationalité sénégalaise ba tax moom Thierno Alassane Sall nag mu daal cee fësal ab communiqué di ñaawlu lu ni mel wante di xamle rek ne duñu bàyyi nag boobu li violation de la constitution rek euh, muy jàll di euh, wax rek ñi nga xam ne moo di républicain yi ak ñi nga xamante ne si nag patriote yi daal ci jóg daal ci dugal seen loxo ndax mbir yooyu nag parti démocratique bu Sénégal nag ñoom daal nañu cay tontu génne ab communiqué wàddu rek rek bu Karim xam ne jamono ji moom la ñëpp rek di waxtaanee ñoom waa parti démocratique du Sénégal ñu ngay daal di accuser seen ay adversaire politique ndax nag ñu ngay xam ne ñoom ñoo daal di yëkkatiwaat rek question double nationalité bu Karim Wade ñoom sax nag di xam ne kookee di Karim Wade daal nañ renoncé wu ci double nationalité boobee ci lu yàgg yemuñ ca loolee nag ndax ñoom daal nañuy xamle li nga xamante si nag moo di conseil constitutionnel daal jeexal wax ji ji ndax nag daat nay euh, dugal rek turu ki nga xamante ne si nekk moo di Karim Wade ca liste candidat yi nga xamante ne si nag daan na koy fësal te loolee sax nag provisoirement rek lañ ko daal di def ndax nag liste officielle bu candidat yi nga xam ne ñoo war a bokk ci jonganteem 2024 loolee nag le 20 janvier rek lañ ko daal di war a fësal jamono ji nag daat nañu jot am lu toll ci 21 candidat ndax Karim Wade dafay daal bokk ca ñooñee rek niki le janvier wala du ca bokk ndax problème mu double nationalité bi loolee nag le ci daal di am lu ñu leer. Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture mu ci gën gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw te wóor la waaw waaw kàppee de yegsi na askan